Seynou Diaz nuyu naa la. fay la soxna si. Euh, tey Kéwoulo di la dalal ci plateau am. dëgg la euh, mercredi le 10 mai 2017 bi ñu weesu. Mhm. dafa am nakar ak tiis bu daloon ci sa famille ci sa njaboot. dëgg la mu nekk say juróomi doom yi nga xamante ne dañoo faatandoo ci même mhm. waxtu bi. ci benn endroit bi ci benn néeg. ci ñu doon nelaw. Mhm. yow nga nekkoon ci ay tolof tolof. ñu lay jaale di la masaw ci yooyu la metti tey jii génn nga mhm. naka nga koy dundee ah comme d'habitude ñu ngi ko doon dundee ba njëkk laa koy dundee ba léegi te ñun ay soldaaru Bàmba lañ ku ñuy roy nag dafa mën muñ mën a jaayante kon boo koy roy dangay ngay jéem a mën a muñ jéem a jaayante ndax ay jullit lañu quoi te yàlla nee na aju muñkat gi laay waxal ñun dañuy jaayante di muñ amuñu mënuñu loolu rek sama xol bi muñ ko waa mu nekk euh, loo xamante ne lu metti la c'est pas évident. Mm-hmm. nga nekkoon ci ay tolof tolof ñu ñu woo la ne la say doom faatu nañu. Mm-hmm. léegi yow ba nga génnee ba nga génnee ci tolof tolof yooyu noonu ban yëg-yëg ngay am. mën naa ne man ba léegi gënuma ci tolof tolof ndax tey la gën a métti démb sax ndax fi ma nekkoon maa ngi doon am suma lépp jaamu sama borom daf naa si amul lenn du mais bi ma ñibbisee la gën a métti image yi mu fa bàyyi woon fekkuma ko fa yeneen image la fa fekk image bu difficile dund moom laay dund. comme maa ngi ñëw bi ma ñëwee ba léegi mënuma liggéey. mo def dara tëdd yeewu jog kesse yorul gor bay yor keur nono lo ligue est-ce que cela veut dire que da ngay dem di outil ligue fo dem ñu tejeul la seeni buntu waaw amna ñu ma tegal ne ma ñëwal ñu ligue yi mais ñi ma wax ñep ñëwal ñu ligue yi kuma ci wo après nga na la wo nga may wax na la wo na la wo ci sa xalaat bu gatt lan nga yaakaar ne moo euh, dañ lay dañ ta sa yaakaar xeyna bi ma bokkul woon ci société bi ñëwaat ci biir société bi waro a bokk ak ñom lu ñu mënta partager ak man man daal lepp tam ko jël teg ko suñu loxol borom te xam ne bu naree neex rek suñ borom dina ko défar quoi bu naree naqari tamit suñ borom dina ko défar quoi man awma leen lu may def lu dul sant yalla kessé kon fi mu nekk ni da ngay teud di jog amo ben préoccupation boy def waaye sa xelam ci liggéey. pour mën a fàtte yenn yi man parcelle ku ma xam xam ne man liggéeykat laa xaw caaxaan. ab mbir nag suñ borom dina la ko teg yow ki ban genre nga. Ousseynou Diaz euh, bu ñu fan bu naqari boobu le 2017 euh, bi nga xam ne ci la bi dalee est-ce que waaw boobu temps maa ngi ci prison bi dama tëdd di nelaw journée boobu mën naa ne bu muy am sax mën naa ne man maa ngi koy yëg fi ma tëdd ndax ci ay nelaw lañ ma yee te nelawuma nee ma booy gis nga télé bi man leen man yeewu ma bay xool télé nee ma booy yow nu mu demee nii man leen dara kaso bi ñëpp ngi jooy di mbëkk miir rek lu def lépp man ma toog laa toog rek ah, suma ñàmbur ñu ne ma booy sa doom yëpp gaañu nañu mu demee noonu ñu sa doom yëpp gaañu nañu par la suite xool télé bi ñu taal xool télé bi suma kër fii suma kër la et fii suma néeg la mu gis koor yi ñu génnee ko ma dolli sant yàlla xam na yàlla moo ma mayoon loolu peut-être li mu indi fii nii moo tax ma mën a maîtriser loolu ma gën a am courage jaayante bëgg a duggaat ci société bi bokk ci société bi ndax man fi laa juddoo fi laa yaroo xaw ma fenn ah, fuyul fii. nekkoon foofu ci prison bu Thiès la defe naa. waaw mas de Thiès laa nekkoon commandant Diatta moom ma yoroon. est-ce que booboo xamoon nga ni xale yi euh, à un moment pratiquement. amuñu won surveillance wala eh, dañ nekkon pratiquement ñom yi neen ba fa man mo ma wax li ne sama ginaaw li ma doon dund la xam quoi li ne won sama ginaaw dara xawma ko ci parce que amna petit frère mi ngi fa amna ay grand frère ñu ngi ci kër gi amna nijaay mi ngi ci kër gi amna lak mu ngi ci kër gi suma soxna ma ko baye ci kër gi kon man lañ té man maay sen papa man lañ téewon té lepp miru suñu borom la ndax lutax man la miru suñu borom la man lima dal ju amul kenn lima dal nat suñu borom la té suñu borom mo xol jaamam ko attan mu tek ko ko. Ousseynou loolu la dal est ce que mën nga ñu fatali ci yan circonstances nga nekkon ba kérok ñu ñu lay japp lay yobu prison Thiès lan mo xewon exactement. wa exactement man dama jóge won suma ben keur tante bi may jógee suma keur tante il fait minuit may ñibbisi oto cette place 2500 ngay fay sama poche 2000 mo ci nek ma taxaw pour xaar auto gis waa ñew di jënd café ma ñew ne ko sëñ bi dama bëgg nga yu balé ma ba gaaraasu mbuur ma jël auto mu ne ma danga may fay 1000 francs sëriñ ñaanu tuddu ku bax mu ne ko aw 1000 francs téeméer la am mu ne ma garaawul nañ dem ma tor ci ginaaw dawal moto bi ba ci ñaari doodaan yi nek warang bi ñëwee ba warang ñu wacce ñu mom mu tab man ma taxaw ñëw fekk sac bi ñu yoroon engin bi ñu yoroon amna 10 kilo bagage yamba lu ñuy téré man xawma ci dara ñu and dem ñu japp ñun ñaan ñep ñu démé ba yegg mu ne leen kii moomul dara man daf ma ko dama ko fay daf ma fay pour mu indi ko ba garage bu bàyyi leen ko ñu dem ñu ne non non dañ ñoo woo téléphone ne dakaar Dakar ngeen di jóge di ñëw ba ñu taxawee tamit tribunal c'est la même chose ba ñu taxawee tribunal dañ ma laaj sama question ma wax leen li ma arrivé ñu ne ma pas de question amuñu luñ la laaj demal nga toog ñu woo Serigne Niang wax ak ñu renvoyé ñu de libéré. ñu amee renvoi de libéré bi ci diggante renvoi de libéré bi ci la suñu borom def li muy def. ci diggante bi def nga ñettu atu kaso euh, keroog bi la commandant bi nga xam ne moo géré prison boobu bi mu ñëwee nan la nan lañu waxee ak yow bañ ne lay fu nga génn dem fekkee bu ñuy rob see doom te nga dellu euh, benn waaye bu ñu naan sëñ saali bu ma bokkaloon nekk ay murit lañu samay mbokk lañu ñoom ñoo toog. gis ma fi ma toog ma wéeru ne tekk jàll toog yor sama cantukaay di wérdu maa koy dund métti na trop mais li ma gis foofu moo gën a métti ndax ku ne ngi jooy mel ni sa doom la ku ne ngi xaru léegi ñoom bu fekkee ñoom dañuy jooy man may jooy nan lay demee kon ñu am maîtrise u kaso bi quoi mën na dépasser man yi nga xam ne may góor yàlla nag man damay toog jaayante noonu moo tax ma jaayante ñu dem yóbbu ci commandant bi dañoo yegg tag ci commandant bi ñu génnee waa daara ji ñëpp wàccee ay kaamil xëyaat wàcceewaat ay kaamil ba bi may denc xale yi gudd juru màggal daaru boobu noonu bi ma ñibbisee man maa téye maag bi di sikar pour motiver leen ñu nekk. ci biir kaso bi ci biir kaso bi. waaw ah, komandan ànd ak commandant bi commandant bi taxaw tege ci tëj ci bëtam commandant bu baax muy jaata lu koy nuyoo passage ku baax yi noonu. Ousseynou bi nga ñëwee yegg si parcelle ànd ak euh, mbooloo mi ay xarit say am di jàmm ñu gunge la. Mm-hmm. Euh, gunge xale yi foofu ca armeelu Yoff bokk naa si ñi taxawoon ci ñu gunge woon mbooloo moom. dëgg la euh, keroog ba ngay woon ginnaaw juróomi xale yi ndaxte musta am Sénégal. fàttalikuwuma ko bi ma juddoog léegi man xale yi ñëw naa ba denc leen ba won leen ginnaaw wéetewuma defuma dara bi ma demee ci kaso bi dara méttiwuma defuma dara mais bi ma ñibbisee ci la ma affaire bi commencé touché ko

Ousseynou gannaaw yow mi nga xam ne tajewuñu woon ak yow seede yi ñu am yëpp ci mbooloo mi doon nañu wax ci astu Diaz mel na ni moo doon yaayu njaboot gi moo doon uuf ay doomam. waaw loolu xëy na mbooloo bi ñoo ko xam ndax ñu ko fekkee quoi man fekkewuma ci loolu dara ndax ginnaaw laa leen wanoon mais man bi mu leen di mujjee gis ñoom ak seen yaay ñoo ñëw seet si ma ñoom ak seen yaay ñoo ànd ñëw seet si ma. koy fàttaliku ci ku mel ni Kader Diaz xale yi seen seen attachement ci seen papa waaye seen kër maam ba yooxu bi kër euh, bëgga daal bi tey jii kër gi nee na waaw Kader bokk na ci li ma gën a wéetal moom rek laa xam ci tomb kóor dafa teel a doon bàyyi faal bu ndaw mbok ci nit kuma neex lu muy dund nek lu ndaw ñom ñep amul ku ma manké wol tay ndax ku ci nek am na rôle bu ma jouer ak yow ñom ñep suma limé ki bay ki rek damay joom ñom ñep suma xarit lañu ñom ñep est ce que bana bobu nga don dem euh, ci prison ba ci Thiès lan moo doon liggéeyu Ousseynou. moment boobu mécanicien la deux liggéey ba tey damay am ay client pour liggéey mais suma papa ma liggéey mécanique bi sumay mbokk bëggatuñ ko kon koy bàyyi seeti leneen quoi mécanicien la damay liggéey. ci diggante bi amoon nga ay relation ak euh, politique yi nekk ci quartier bi ni mairie bu Parcelles Assainies defe naa ne maire bi ku koo xamante woon bu baax loolu. waaw Moussa Sy bi mu koy xam yàgg na quoi boobu doonagul sax maire boobu moo doon tracé terrain bi terrain bi moom moo koy tracé bu nawetaan amee këriñ boobu mu koy tracé man maa ko indi boobu xalaatuma ne moom dina doon maire moom xalaatul ne dina doon maire yàgg nañu kon man ak moom yàgg nañ suñu réaction yàgg na. parce que ci quartier bi Ousseynou Diaz ñu fàttali moom dafa ñëw directement ne Kerbala koo xam Kerbala xam ni am na seq ngeen jàmm ju dul wàllum officiel simplement. waaw xam nga jaamu ci la lépp xaj te lañ daan def ba ñuy xale mëntuñ ko def ndax léegi dañoo màgg quoi ay mag lañu duñu ay xale yu ndaw ku ci ne xam nga lu baax xam nga lu bon dañuy ñaan yàlla nag mënuñu suñu borom dindi ñu di jéem a dindeeku ñu nit doon leneen. Ousseynou est-ce que ci biir prison bu prison ba nga nekkoon est-ce que gannaaw bi jëye bi amee. Hmm. amoon nga bénéficié woon nga ay assistance lu mel ni ay euh, soutien lu mel ni ay. Euh, psychologue yu seeti woon. amul psychologue bu mës a taxaw suma kanam. man sëñ Bàmba doy na ma psychologue noo rëy nit na ma amul benn nit bu taxaw ku dul sama mbokku prisonniers yi fa nekkoon di ma dëfal ku ci am sa cere suukar ko bu mu neex saf daf ci meew mu neex na xaar ma jox ko kar ba mu ñaanal ma man dem naa ba benn instant ñoom dañu yaakaar ne man sëriñ laa ci biir néeg bi te demeewul noonu suñ borom mooy teg nit ki mooy may nit ki muy xaj nit ki man lepp suñu borom la ko wék sa yegg si ci Parcelles Assainies bi nga ñëwé lu bari changer na comme ni nga ko waxee kër ga lu meloon na melatu ko xale yi fi euh ndumbé nekatu fa defé na repère yu bari bari bari bari yow nak nga retrouvé wu ci biir milieu bu mel non ni ma ko dundee métti na ba légui dafa metti ci man ndax damay tok un mois du mu génn néeg ci biir kër gi lay tok du ma génn ci mbedd bi su ma génnee suma atelier bu njëkk ba laay dem te bu ma fa demee dum fa toog tax lu tax dum fa toog samay mbokk ñoo fa nekk samay rek samay petit frère samay copain ñoom ñëpp ñoo fa nekk mais heure bu ma fa demee day am luy ñëwaat ci man quoi su ma toogee ci place bi tak suma xel day nekk ci kadeer quoi ndax dama daan fekk foofu te dafa amoon ay xale yu fa nekkoon ñëpp a màgg sama ginnaaw su ma leen gisee rek damay fàttali ko. tey lan mooy sa relation ak te muy kooku maa ngi moom naaj mosuñu am benn problème mosuñu am benn maatar sama xarit la sama gaañ la li ma nekk prison yëpp moo ma toppatoo ba ni ma ñibbisee ba ni may wax ak yow mosuñu am benn problème maa ngi moom. c'est que liñ dal metti na trop man ak moom. ñii dañuy wax ñu version bii ñuy wax version bee man xooluma version bi xooluma version bee bàyyi naa ko suñu borom mi moom ñu te sàkk ñu lépp ci mu ngi ci ma xam Ousseynou xale yëpp fii Dakar lañ juddoo Parcelles Assainies ñëpp benn kër lañ juddoo waaw euh, ce que am na version bu bare bu génnoon ne seen yaay daf leen demoon utili ji ay këyit waaw est wax jooju wér xam nga bu wéree bu wérul kooku mënuma la ci wax dara uti na këyit wala utiwul kayit man fekkee uma ko quoi maa ngi woon ci prison bi foofu mënuma la ci wax lenn amul lenn loo xamante ne mën naa la ko ci wax c'est que l'essentiel que mooy moom mu ma doon toppatoo mu ngi doon mu ngi ma doon gérer normal numbe mu ngi ma mu nekk sama ginnaaw nag mënuma nekk fee di ko xamaa Ousseynou bi nga ñëwee jëm nga jógee service sociaux yi lu mel ni mairie bu seen quartier bi mu mel ni euh, euh, côté étatique xool ndax am nañu moyen d' insertion mun a jàppale parce que keroog bi jëyee bi amee gouvernement bi pratiquement ñëpp ñëw nan fa mhm. jëlee ay diggé dañ mhm. def li ba lu mel nii bañ amati est ce que bu mbooloo mi demee ñooñu dellu si war naa bi may dem dama wéet bi ma ñëwee dama ñëwagul fii denc samay doom mais ñibbi ma wéet bi ma ñibbisee ba tey noonu laa wéetee sama mag du mu bàyyi ma fenn xol du neex damay jog damay jaayante dogee ne géré parce que kër gi maa ngi ci biir kër gi mais damay absenté rek suñ benn copain moo fa nekk ak man pour wéttali ma bàyyi seen kër nag laa bàyyi seen kër ñëw toog ci sama wet su rakk la alaaji Malick ak David ñoo ñëw toog nelaw ñu nelawul duñ nelaw ndax des fois toog affaire yi daf may dikkee affaire yu bizarre ci néegu xale yi laay julli ñaanal leen loolu rek laa mën a def moo fi nekk du ma toog di jooy su ma jooyee weddi suñu borom may jaayante rek. tey Ousseynou naka ngay envisager avenir bi naka ngay parce que jeune nga su ma la déwénoo xale nga mun naa ne jeune nga. booy bu ndaw laa billaahi xale bu ndaw laa quatre-vingt-un laa judd 31 juillet quatre-vingt-un laa judd je suis jeune. li ma ñak suñu borom mën na ma may lu ko fuuxoo borom karaw bu ñuul ñakul dara te man ko yàlla la mi côté yépp war bo mu tugal damay liggéey bañu ma dara xam lu may bañ jël na yëfu jàmbur wala moo ñu tooñ loolu lay bañ ci biir enquête bi ñuy mu euh ñu bari ni nañu yoon yu bari bari bari da ngay dem ci teman ya nga dem fa sax ay guddi euh, lan moo waral loolu aussi li may sentir ci samay doom man rek maa ko xam dama leen amel ak xamul tax ma amel leen àq sama ñeent téeméer yooyu su ci oto kon amana na prison mais bëgg lu ma neex rek gis machine rek sama xel nekk ci machine rek ma ànd ak waajee ma amal leen àq ñaata at laa toog ci kaso bi du suñ ma ba nu wàccee liggéey kon loolu metti na ku ne mettiwul laa dalul sant yàlla bu baax alhamdulilah rabbil alamin avant nga doon dem prison bu Thiès bi ndax mosoon nga am problème ak justice. si mos naa am problème ak justice tëj ma ci 4 mois. problème bu euh, moto ou scooter laa yoroon mbëkk benn xale bu jigéen loxo bi damm ñu yóbbu ma police laaj ma ak permis tëj ma ci 4 mois. ba léegi fi mu nekk nii yow yaa ngi dawal scooter deux roues. ba tey maa ngi dawal moto. Euh, bu ñu seetee lu ci bëri moo lay dugal ci ay tolof tolof nga génn tey di ci delluwaat. parce que soxna dama am ay yoon yoo xam ne dama koy bëgg di dox bu ma demee suma place dañ may jox caabi ne ma demal su ma duggee ci oto yi fi ma koy jëlee damay am problème. parce que man amna ño xamné ñu bëri dañ ma xam te xaw ma leen moo tax li may génn papay ngi né papay xalé ngi né manam nit ñi seen bu ëppé ci yow sa seen yërmande ñom bu ëppé ci yow baaxul quoi lay laay tu rek motax muy jël dooru diko tawal dooru bi daf ma gëna yomb rek mais su auto looy sàkku ci ndimbal lan lay doon. man su ma amee lu may sàkku ci ndimbal lenn la liggéey bu baax bu may xëy heure te wàcc heure walla ma génn Sénégal dem beneen réew loolu laay sàkku sàkku ma d'accord yow xam nga maire maire Parcelles Assainies ne nga sa xarit yow avant mu doon nekk maire ba tey yii nee na mu nekkee maire ndax tamit côtoyé nga leen ba ngeen ba nga génnee ba wala ngay toog rek jàpp sa bi ma génnee ba duma la fenn sama njàmbur laa jàpp dama ñëw rek toog daw ma fenn nag ñoom ñooy ñëw fekk si ma waxtaan ak man damay toog suma xarit ñëw yëkkati 10 000 jox ma wala 5 000 jox ma wala 1000 francs wala 500 te leen ko xëy na seen yërmande la rek mais daw ma fenn daw ma fenn dama toog di lijjanti suma këyit pour xool na ma def. Karbala bu fekkee ni am nga benn message boo xam ne danga bëgg a Sénégal ak askan wi nga xam ne gannaaw Sénégal sénégalais yi nekk extérieur ñi nga xam ne sa cas yéem na leen ban message nga leen di jox. waaw ah, man lu ma leen wax dara lu dul ñu dooleel ma quoi. nañ ma jàppale seen rakk seen frère seen mbokku taalibe ñu xool situation yi mu dund ñu dooleel ma ko quoi jàppale ma ma mën a yegg fa yàlla kese laa soxla ku ma mën a dooleel ba li ma dal mën a génn sama xel mënul génn sama xel mais duma mën a fàtte tuuti sax di soulager comme nit ñi di nekk ci nit ñi bokk ci biir nit ñi

mais su ma amul woon jaayante leneen lay ton maanaam maîtrise su ma ko amul woon moom mi njëkk saaga xam nga ku la njëkk saaga après du ma ciy topp mais dama jaayante rek bàyyi ko yàlla. pour nga dem hôpital pour pour changer nga proposé woon Euh, soxna si maa ngi jégalu quoi man góor yàlla laa pour ma dem si psychologue nga jox ma benn jukki walla benn dol walla ma jox ma benn téere ma siy jàng moom ma ko gënal man sëñ bi doy na ma psychologue dara méttiwu ma am lu dindee ko ci man rek te mënul ñàkk bañ a dañ ndax ñoom fañ dem dañ ñëw jitu quoi après ñun ñu ngi seen ginnaaw quoi. ñu nekk ci eh, dëkk boo xamantene dañu ne réewum teranga la Sénégal ñu gis ñenn ñi def def ay action sociale. Mm-hmm. ku ci mel ni première dame madame Mar eh, Mariam Faye mm-hmm. di di jàppale yenn doomu aadama yi ñenn ñu néew doole tey ñii nii tiis bi dal ci sa kaw. boo amoon tey jii nii boo amoon tey opportunité ba jàkkaarloog moom lan nga koy wax lan mooy doon sa mbébét. suma mbébét du dara man beneen nouvelle vie laa bëgg dama bëgg changer image bi ne ci man ak bi ne ci nit ñi ak bi ne suma kër soxlawuma leneen loolu. beneen nouvelle bi ñu jàppale la ba nga a liggéey. waaw. loolu rek laa soxla soxla uma leneen. yaa sa yaa sa soxna yéen a ngi nekk ba tey. maa ngi sama soxna amuñu benn problème amuñu benn problème ñu ngi si jàmm nice alhamdulilah bu baax la. si déggoo li ma la wax bi ma ñibbisee ba léegi dafa mel ni fi ma nekkoon moo dàq fi mu ñëw. xam nga fële aw ma liberté mais fii am naa liberté mais liberté bi ma am fii nii satisfaire wu ma dara sentir ma ko quoi. kër gi daal ay souvenir sa souvenir doom yi doom ngay bàyyi ci. kër gi ni ñu ko wane woon ci image bi ci télé bi noonu la mel ba tey atuwaasi rek lañ defar ak néeg yi laq-laq yeeg lépp ngi ci gàlle bi ba tey. ne xolu ko nga yeewoo image boobu. ñan ngay dundal ci bir kër gi ñan ñu fa nek ci bir kër gi. man ma fa nek suma petit frère suma ben boy alaaji malik du fa daf may ñëw li ngone mu dem teddi ak dawdo David ñëpp ñoo fa nek soxna si neew ci bir kër gi. non mom mi ngi seen kër quoi actuellement nii mi ngi seen kër mais ñu ngi gisé quoi. ñu ngi gisé ñu ngi gisee. ñu ngi lay jaajëfal remercier ce sa teewaay bu tey